kenn xamu ko li ñuy bind ci téere kenn xamul na mu toll waaye itam du tax lu téere wax nu gëm ko bu fekkee jaarul yoon du nu ko gëm loolu rek mooy li ci nekk bind bu jaarul yoon mooy li ci nekk lu ci jaar yoon nag nu gëm ko kooku noonu rek la sunu borom lu mu tudd ci alquran rek am na loolu am na tabarkalla tabarkalla yàlla xam na ko ba tax na rek ah njàng bi daal nu ngi ci waaye itam nag du tax du tax li nu war a gëm du du gëm ko mënul ñàkk loolu passé ñu gën a feddali ndax Sëriñ Moustapha bi ñuy ñëw jox na ma yóbbante sama wàjjur bu baax bi di sama kilifa di sama soppe muy Sëriñ Saliou sëriñ Saaliwu Mbàkke tabarkalla na mu daan def defati na ko joxoon na ko sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha indil na ma ko tabarkalla yal na ko yàgg war na yàlla yokk leeram te jofi ko ca leer yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nañ ci lool ah, dafa rëy ci ñun waxuma la dara waaye kàddu ya mu koy booleel rek jar na lu ne man nag sama xarit la démb démb démb day soog ñëw booba demagul sax Touba booba moom ci dëkkam ba mu yónnee ma ndaw ni boo demee neel Cheikh bu dee dema ci vacances ni ñëw fii ci man waaw waaw fii lew na ko mën na fi dem vacances ma xam ni loolu moo jàddu tabarkalla tabarkalla bi loolu passé itam yóbbante yi président Ablaye Wade yónnee tabarka la jot na mi ci yal na ko yàgg war yàlla defal ko yiw loolu baax na waaye itam ba nu àndee du tey wallaay booba nu ñàpp naw la nu wax dëgg yàlla mu nekk ca Addis Abeba mu nekk ca Caire yàlla xam na ko booba du tey booba du tey te waxuma ko pour pour trafic d'influence. du sama jikko sama jikko trafic d'influence moom baal naa ko ñëpp du sama jikko waaw dama xam ne rek bu ma ko waxee ngeen bëcc du dëgg loolu moo tax ma wax ko ngeen xame ko noonu kon maa ngi yóbbante maa ngi yóbbante sama sama copain yi pour ñu waxal ma waaye sama ganu tubaab bi nee na ma bul waxati copain ndax eh, ëpp nga ko del wax sama camarade waaw ma ni ko benn la mu ni ma mukk du benn mu ni ma dangay seet sa boo seetee sa papa dootoo wax copain mukk camarade dañ lay wax ndax itam nit dañ koy sédd mu ni maa ka neexoon ma fekki dundam ma fekkoon dundam danaan nekk militant parce que xamoon luy taalibe militant lay wax te tugal yépp moo fa raw waaw dama koy wax ni ko tu es l'homme le plus cultivé de Paris bu ko defee ma xonq cooy it dafa am gers te man xam naa ni Paris yépp moo fa yàlla xam na ko yàlla xam na ko tabarkalla tabarkalla waaye rek ma yóbbante leen ko ngeen waxal ma ko góor gu baax bi waaw sama waajur bu baax ba ngeen waxal ma ko yóbbante leen ci président Ablaye ngeen waxal ma ko du dëgg tabarkal te maa ngi ci yoon wa du dëgg mu ngoog tabarkal ah bu loolu la tabarkal la sama doomu bopp ji tabarkal la na yàlla yàggal suñu diggante te yàlla defal ko bëgg-bëggam sëriñ Cheikh suma wëllëre la woon lool bu mu ëpp walla yàlla xam na ko dañu daje Paris ma waxtaanal ko mu ree ma ne ko lu tax dooree ci Sénégal mu ne damay bañ ko ma yem <laughs> wallahi Sénégal yi dafa gaaw yàpp kilifaam looloo ci nekk ndeysaan moor moor moor jama moor jama nee na ma la ma la fi nettali woon ma ne ko aw ni ma euh, texte bi ci dese ngii ba indi naa ko yéwénal naa ko ba ni ma mooy sama mooy sama na ma ko waxeeti mooy sama julli ga woon ca wa samaay wa taarix yi wallaay ndeysaan mu ne xam nga daara ji maa ci gënoon ne miil mag duud ma ne ko waa loolu xam na mu ne ma ñaan xóoñ rek laa daan def am ndes tayit waaw defe naa am na fi ñu xamul ndes tayit xamuleen ko de ndes tayit ci yinde lay nekk mooy wër yinde noonu dafa neex mu ni ma mag duudu ñoo gënoon ne niil ca dara wër ñaan xooñe rek ak di ñaan des sayit lañu def wallaay mu ni ma nag ma dem ca dëkk ba rek bi julli timis ca jàkk ja ilimaan ji ñu ni ko ku jógee daara ji ñëw na fi mu ni kon nag duma ko jiite na ñëw jiite nee na ñu wax wax mu jël kaal kaala ga rek teg ko ci sama mbagg nee na may xam nga bakkan rek ndey timis in haataynaakal doy na ca نيما جل وسماء وتاريخ لك لك ما كلو نانا نعم، إن كل نفس لما عليها حافظ نانا نعم، خواتو ما لجتك مني كنغروكو مني ما أقلول كت نيادون جانغوكو خواتو waaye man man mu jàngul kay jànganul lu dul di wër di ñaan xóoj ak deseyit kay lu ma ci xam nee ma ne hafisul ah, ñaar ñaareel ko ndax bëgg ñu gàggan si ma ndekk jàkk ji kenn mokk lu jëwa sama ay nee na ma ñetteel pour ñu gàgganti ma ñu defe ni dama bëgg ñu répété ko comme man mais ñoom ñëpp ñu àndaloon ni man jëmi subhanallah subhanallah ne ma ni tey lay dee ndeke duudoo ngi ci dugg si nee na dañ daan xeex noo gënoon a ci daara ji nee moom la yàlla dogal moo may gàttal nee na ba ñu gëjee gisee mat na fukki at juróom ci ne ma dégg ci gannaaw ku ma nii fal yan suru fal laa la wax man nee na ma gestu ni ko kokkan la nee na mu ne ma mën a tuutu ko ah xamoon naa ko nee na maa ngi jaaxle ndax su ma gàggante dana yàq sama der bi yépp nee na yàlla dimbale ma nag ma ko kenn du wax fal yan suru fal yan suru la ñuy wax wootee ci sama fal yan suru gi daw ba fat nee na ma ni ko bilaay nag wax nga dëgg xaw na maa dee ne mu ne ma accoru kool nag parce que timis ji passé nee na ma sëgëru ko mottali julli ga waaye ne ci ëllëg sa dàq ne ma xëy rek wóor na ma ni joxe ci àddiya yi daañ ñëw ne ma defaru nag maa nga defaru ñu indil ma sama ndékki ma ndékki ñu indi cuuraay ma suuru ñu jox ma libeñ ma tuuroo ne toog nag di xaar ku ku jëkk ñëw rek indi àddiya nee ni suuti am ku ma déy nii am na ñeent ñu agsi léegi mais ma ni bismillah bismillah maa ngi defar sama cikkim si ba mu jekk ma ni bismillah nee ñu dugg si rekk di ñeent nee na ki jëkk dugg casquette ba mu sol mu nga wëlbati këf ko mu féete gannaaw nee mu ngi ànd ak ñett benn mag bu baax ak ñaar ñu amee yëfu rajo ñoo daal dañ ñu yabaloon life real life. Naman lang mandikib you Takan ne duduk dekin abu ya. Naman lang dekib mo. mu baax ma ni wax na dëgg ne naka la ma xool rek gis sama bët yi mun leen wax na dëgg ndekkeegu kon nag nan dem moo gën parce que sutura baax na yéen ndekki ngeen man ndekki na patron bi ndekki na waaye moom ndekkeegu nan dem nee na borom kasket ba lànk ni ko service bee ma yónni mu ko waa service ba borom ndekki na waaye kii nit nee na mësuma gis mukk mag mu baaxe noonu nee na topp ko ba xale bu ba xale bu mujj dàq ko nee ñu dem ba ci diggu kër ga ni ma gis ñu taxaw nee na xale boobu moo dëgër bopp nee daal soow na mag mi ba mag mi ànd ak moom di dellu ne ma xool palanteer bi fekk joxewul ca mbedd ma nekkoon foofu laa doon jaare pour daw nee aw ma pexe na ñu ñëw ni léegi laajatuñu dañ ñu woon rek nañu laaj ñaata téere la maam alaaji Maalik def eh, léegi loolu laajatuñ ko waaye nga wax ñu ci benn benn rekk bu mag ne man leen bi ci gën a mag ñu ni waaw nee na man leen bi ma daan yenul mbay biran saar nee na ñu ni waaw Neman dan minggu sudah abad abro Nana borom kasket bani madudak Wallahi nesa ni ma mësuloo dégg téere bu tudd Abu waaye ne mag ma daal naxanteeg moom naxanteeg moom ba ñu dem ba ñu demee ba fa ñu taxawoon ñu taxawaat ne ma ne ah, am na lu ma war a bàyyi xel ne ma yër suufu lal bi seen ci yet ne ndeysaan foofu nag ma yërëm sama bopp lool ne ay waay gémmiñ a bon waay sama ngan gi ni mu naroon a neex nii toj bopp ciy mucc ne waaye rekk mag ma rekk takku rek takku ba yóbbu leen tabarkalla ndeysaan lay ndeysaan kon nag tabarkalla lay ndeysaan ne yàlla yàggal yiw ah guddi gi de ñun bëgg nañ ci lool ndax amuñu lu dul yéen tabarkalla tabarkalla nu bokk ñun ñëpp amuñu lu dul kenn mu yonent bi nu ñaan rek ci barkeem yàlla dinu taxaw yàlla dinu taxaw te yàlla dinu ñawant ndax sëñ Babacar ku nekk ci àdduna doo ñaan yàlla yërëm la ne xaju fi dangay ñaan mu ñëwante lay ndeysaan kon nag yal na yàlla duñu ñëwante tabaarakallaahu kilifa yi fi daje yépp yàlla téye ci seen loxo te dimbale leen xàllal leen yoon tabaarakallaahu eh, fan yi yépp maa ngi laajte sama mbokkum bopp mi xaw xaw ma kañ la ñëw ab lay jóg ne dafa voyagé woon nekkee gàmmu si yëguma ko wallaay ndeysaan xam naa dafay bañ gàmm gi raw ko ëpp naa def de gàmm de bu mu raw kenn wallaay ndeysaan loolu baax na lool ne yàlla taxawu nu ci biir ak ci biti loolu baax na di tabarkal ne yàlla taxawu nu ci biir ak ci biti yàlla musal leen musal nu musal njaboot yi musal xarit yi musal àndandoo yi la ñi jóge biti réew ñi jóge Mauritanie ñi jóge tabarkalla kenn ku ne ñu ngi laa xool bëtu cofeel kenn ku ne ñu ngi laa xool bëtu Serigne Babacar Sy parce que moom rek la ñu am nag amuñu keneen moom la nu am te xam na ko wallaay ndeysaan moom la ñu am te xam na ko loolu la ñu am te xam na ko ndeysaan dafa am benn doomam bu faatu ci fan yi paase doomu sëriñ Babacar si bu ñuy wax ay dara di sëtu yonent bi bàyyam di waliyu parce que Chérif Bachir moo ko jur yëkkati ko jox ko sëriñ Babacar si sëriñ Babacar si wax ma ci làmmiñam ni ma parce naa ko yéene teg ci sama mbagg ba jébbal ko maamam waaw ndeysaan ci fan yi rek mu daanu feebar ma tëdd ba guddi ma gis góor gi mu ngi triste lool ngi amee benn kayit ci loxoom mu ngi toog ci kaw ma toog ci suuf mu mel ni daf ma bëgg a tàggee nit te am kersa parce que daf koy def bi soxna na fi gaañoo bi ñu tuddee na fi mbay mi mu bëgg ma ko tàgge daf ko rus ba mënu ko wax noonu la mel mu toog rek ba mujj mu yëkkati kayit gi jox ma ma nit teret ci ëllëg sa rek ñu ne ma shérif jóge na ndeysaan te moom ma waxoon ni ma daal séddee naa la ko mook sëriñ Habib yépp daal sëriñ Habib dafa nekk ku fragile mu ni ma te yaayam a gën ci àdduna ma ko wax ci lammiñ ma sëriñ Habib dafa nekk ku fragile te yaayam moo gën caatu wallaay soxna Roqaya Ndooy moo gën caatu soxna sëriñ Babacar la woon moo nekkoon routière may ñëw routière pour jàng si fa soxna sukkan bindu ko lettre ni ko sa dooma ngoog ma ñëw nanguwul keneen fóotal ma kudul moom nanguwul keneen toggal ma kudul moom ma nekk routière man rekk maa fa nekk di jàng bu teyee alaaji Abdu bindal ma bu teyee alaaji Cheikh Ndiaye bindal ma boo lëggee Mouhamed Yahya bindal ma kenn nekkul ritière booba barke ñëwul faydu amul waaw tabarkalla tabarkalla sëriñ Habib nekk ci sama loxo ay Aydara nekk ci sama loxo sëriñ Habib bi muy gaañu ma nga ma fekk ca àll ba ci biir Saalum ci tournée bu metti ba ci rajo laa ko dégg rek ma wàññi ko fa wut si Ndakaaru yàlla xam na ko ci rajo laa ko dégg waaye mu nekkoon xale bu attaché wu Sëriñ Habib bu ñëwee dafay tëdd ci sama kaw wallaay tëdd ci sama kaw waaye rek gis nga euh, shérif mu jus tubaab yi jël ko mu war a def service militaire am ba mu génnee dañ ko tagga tagg kayit yëpp ngeen ma ak livre militaire am ak yëpp tubarkalla tubaab yi tagg ko ci tegginam ma xam boppam ak lépp ñu tagg ko wax ni jarbaatu Babacar Si la jarbaatam waaye barki démb la gaañu kon nag tubarkalla ñu ngi ko jaali ñëpp surtout di ko jaali waa daayira bi ndax ku fonkoon daayira bi la tubarkalla yàlla xam na ko ku fonkoon daayira bi Ken musul gis sang bu mel non ndax lolu ah, cherif yunus mo mel non mo len jël jox len maodo jël cherif bashir cherif boubacar cherif makki ñoom ñett ñep mu jox len maodo ni génn na ci tabarkalla ah cherif bashir and ak seigne babakar cherif boubacar and mansour ak Chérif Màkki àndandoo ak allah jaabi bii ñu jox ma ko tabarkalla ba tax na ku nekk ak la la yàlla may dafa am benn mbokku taalibe boo xam ni dafa gaañu tabarkalla waaye euh, tawatul bi muy gaañu am na juróom ñeent fukki at mësuma gis mukk mu wax ak yow ci at sa xol tàngati ba at ma jeex loolu la ko yàlla defal nga xam ni boog nit ñu baax ñaa ngi fi ba tey yàlla xam na ko may wax nag nii jàngu téere jàngu xolo ko gën waaw jàngu téere jàngu xolo ko gën ndax nit kooku maa ngi ciy waxtaan ak koo xam ni ku jàng tubaab la waaye daf ko miin ma di ci waxtaan ak moom mu ne ma man de li ma jaaxal ci moom dama ànd ak moom bés dem ziyaare ji sa papa El nee na ñu toog tuuti mu génn moom waa ji mu génn nee na am ci saal bi nit ñaa ngi fees dell ci saal bi nee na am ku wax Alaaji Mansour ni ko waaw nun de dañu jaaxle mu ne ko lan la mu ne ko kii génn léegi ñépp dinañu dem yóbbu téere jàng moom du ko def te fu mun a fekk bu ñuy werante bu ko àttee kenn du ca man mu ni ko ànd de dina ko di def ni ko ànd dina ko di def ak déglu mu ni ko ndax ñi àndoon ak yonent bi amuñ woon téere te ñoo raw nit ñi waaw mu ni ko te ànd ak déglu rekk ko def waaw ma xam ni ku yàlla baaxal rek nga baax waaw ndax moom alaaji Abdul Aziz say wasila sëriñ Moustapha ay xaritam man la tudde taawam bu góor te du waxtaan ak man mukk ci at te at ma dana féex ci man ba jeex xam nga ni loolu may la tabarkal la tabarkal kon nag ba tey may yaa ngi fi du fi jóg yal na yàlla yombal ko rek yal na yàlla yombal ko ci biir ak ci biti yal na yàlla yombal ko ci biir ak ci biti yal na yàlla yombal ko ci biir ak ci biti tabarkalla tabarkalla ah fi mu ne nag yàlla xam na ko dama soj ba nirootuma nit parce que damay am toujours soju seen waaw euh, ma ni woon rek naa agsi dama ne woon rek naa ñëw sax toog fële rek déglu ngeen gàmm walaay ndeysaan wante xale yi bañ ni rek booy boo rek def ko benn yoon ne man fii laa naroon na toog pour déglu leen ñu gàmm seen gàmm tabarkalla tabarkalla waaye ñu ni ma mukk ma ne acca ko ma ne acca su ma turoon doon nag moom xam nga jikko fii mu ne yàlla xam na ko wax na ma ak mi may génn àdduna billahi lazi la ilaha illa hu wax na ma ko ñu ma nag mi ngi ci yow waaye waaye loolu it waaye lool waaye lool loolu it dafa bare kenn mënu ko ndax dangay màggata màggata kon nag jëkk leen ma ñaanal ba noppi ma ñaanal leen can. páramo